Abou Ndour record demal na le fa fàttalikuwu ma d'abord fi ma ne damaa bañ fàttalikuwu ma fu ma ne dañ ma proposé Abba bañ. Hmm. fàttalikuwu ma loolu loolu. fàttali am na fu ñu toll ñu ngi Modou Ama Baldé. Hmm. Modou moromu Ama ndax boo xoolee ni mu bëree. <coughs> bëree bu bëree Bombardier li si la bëri daal ndax ñëpp xam nañ ko tax day laaj commencé wu ñu te ñun bëri ñu ñu dañuy dem ñu la raay aar mais dañoo bëgg lan moo tax ñu jël combat da ngaa téye fu dëgg. Pape aussi teew ko ndax gis nañ fan yii moom trop de bu baax ko taal macha allah ndax kenn gis nañ ko yaa ngi koy waxee bu baax mais yu projet yi dafa laaj dafa ñëw sa wala def mais lan moo tax nga jël combat ndax fi nga toll wala teg fii sur roi des arènes teg ci nga raw ko fuuf buñ ko dugg nga raw ko fuuf bi nga jël lan foo ko teg xaalis la wala xaalis bi nga doon ñàkk. ni ko àjjanaam leer ni ko àjj ni ko leere tey ni ko àjjanaam leere woon noonu mu dee tey amaa moo ko bu mbër la rek bu ñaan yàlla tey léegi nag bu yàlla bàyyi ba ci kanam kanam wala ko waxu mbër la rek mbër taxaw bi signature wax li nga xam ne buñ ne dañ ne bu dee dina rey waa ji waxu mbër loolu laa jàpp naa ay sonn yu bari wasaare la nga yëkkati moom laa la wax moo tax da nga ne ama ah, dugg na waa parcelle xaw ma tere leen reer yoon man leen man ñaata yoon laa tere reer ñenn parce que su ma bëree Pikine ba pare da foog ne Modou Lo fi la dëkk am nañ supporter fépp vraiment di ñaan daal incha allah suñu bis moom yàlla ci ñenn waa Pikine bu ñu reer incha allah. yow seen affaire yi aajul de yow yi yëpp dañuy jël parole. waaw fekk mu ne ndax yii yëpp dañuy jël parole. non non bu ñu te doy na léegi na des bari na des bari na des bari na na.